maa ngi tudd Lamine Touré responsable politique du parti politique SDD Synergie pour un développement durable tey dañoo defoon euh, point de presse bi juste pour rappeler à de euh, un homme politique bu nga xamante mu ngi fii si dëkk bi bu tudd Olivier Boucan parce que def nañ constat bi depuis quelques mois Olivier Boucan fu mu toogee rek fu mu weetee rek il faut mu mën a jéem a attaquer Souleymane Ndiaye te gis nañ loolu noonu comme dem na ba mu doon mara doon habitude ci moom ñun jëloon position tey jii nii nekkoon ni euh, monsieur Olivier Boucal yow ak Souleymane Ndiaye bokkoo leen niveau bokk ngeen école mais bokkoo leen classe il faut mu xam loolu politique parfois mun nañ it gis nga xamante ne ay acte je pense bi injustice la parce que suñ demee ba euh, un certain Olivier Boucal ñeme tey di attaquer Souleymane Ndiaye continuellement c'est parce que euh, politique mu doxee noonu te luñ ci war a mën a mooy. nañ xamee ni bu dee carrière la Souleymane Ndiaye du maasam du niveau am Souleymane bu mu amoon vingt neuf ans la doonee président commission bâtiment CEDEAO fekk moo muy ñoon université di jàng te moo ko màggee plus de dix ans aujourd'hui suñ demee ba Souleymane Ndiaye tollu fii je pense que euh, c'est parce que quelque part daa gis na nii Euh, lu mu am si xam-xam ak lu mu am ci moyen il population bi njëriñ ci te pour mun si njëriñ il faut mu mun a def politique représenter population bii nii dignement dans les instances de décision te soo xoolee loolu loolu ko permettre tey mu doon directeur général à deux reprises il est très jeune responsabilité la am tey gouvernement bii nii yaatu na trop mais bokk na si ñu koy diriger donc na Olivier yem place am xam ni moom ak Souleymane Ndiaye du niveau. Ah na xam loolu na yëm place am xam ne Souleymane Ndiaye n'est son rival de bu xamee loolu tamit na xam ne Goudomp euh, Goudomp waay ñoom ñoo def choix porté ko si Souleymane Ndiaye teg ko fii seen xol aujourd'hui ñu koy mbakkoo fu ne partout tout Goudomp waay aujourd'hui foo fekk foo toll da ngay ne euh, Souleymane Ndiaye moom mooy fierté toute Goudomp donc na nga xam loolu ne tey jii nii ñun. suñu liggéey bi yëpp mais nan la ñuy def ba accompagner Souleymane Ndiaye mu gën a yokk mu gën a avancer parce que Souleymane Ndiaye moo ñu taxawal fu ne il est en train d'accompagner les femmes. mu leen di accompagner financièrement et matériellement. donc na Olivier yem place am. responsable politique sd di nuyu suñ secrétaire bi di monsieur Souleymane Ndiaye ñun daal Olivier dañ koy xamal lu ndaw rek ñun jigéeni Souleymane Ndiaye ñu moromam. Ah ñun ñoo dul moromam surtout Souleymane Ndiaye. affaire bi lañ bëgg mu dagg Olivier yow yay kan ak foo toj. mu yem ko. yemal sa place. parce que yow xamuñ sa nan lañ la mun a imaginer motoo nit. ñun dañuy wax ak koo xamante dafa mat nit yow pour nit ñi xam ne yaa ngi guddoom il fallait que nga attaqué Souleymane Ndiaye ah mais loolu mooy dagg sinon jigéen ñi Souleymane Ndiaye ñoo lay fekk ba sa kër googu dinañ la def loo xamante ne di nga xam ne lépp dëgg la ñun fooyewuñ Souleymane Ndiaye ah Souleymane Ndiaye fii lañ ko teg mooy suñ or mooy suñ lépp Olivier yow tojoo fen bu ñu sonal mouvement nga yore yoro parti yoro dara bu ñu sonal en tout cas daal boo ñëwaatee nga def sorti dinañ def bu gën a pire bii dañ la ñamal rek de film baa ngi ci <laughs>